marhaba et euh, kàddu gi mi ngi noonu incha allahu rabbi ah, waaw waaw euh, léegi euh, Cheikh Bara Thiam introduire na ko li ci des rek dañ koy bàyyi mu jël kàddu gi wax ak yéen def communication bu paree communication boo amee ñi ciy laaj ñu bind leen ñu laaj li ñuy laaj waaye nañ ko yemale ci timing boo xam ne xaj na ñu fi guddee noonu ndax nit ñi activités yi bari na te jot gi yaatuwul noonu kenn ku ci ne xaj na danga dagg sa yite ñëw bismillah Cheikh Bara waaw auzu billahi min asheytaan rajim Uh, bismillahi rahmaani rahim wa salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala uh, ñoo ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp ci ay taskatu xabaar moo xam seen buñ mën a jóge wala télévision buñ mën a jóge rek ñoo ngi leen di nuyu di leen mastawu coono di leen jéggalu tamit ci euh, retard bu ndaw bi ñu def di nuyu waaw di nuyu bu baax tamit ñi nga xam ne waroon na am baaful nag kon nag bàyyi mbay waroon na am baaful waaw euh, <coughs> di nuyu bu baax ñi nga xam ne di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñépp teew nañ fi di sama ay xarit ak sama ay mbokk ak samay bokki taalibe ak sax ak ñoo xam ne euh, dañoo bokk procès bii nga xam ne mooy bi nga xam ne mooy doxal Sénégal tey muy euh, parti Pastef ñoom ñëpp teew nañ fi bi ma ñëwee fekk naa leen fi kon baax na ma nuyu leen ba pare ñu doog a jublu ci li ñuy waxtaane euh, ci lu gàtt waxtaan bi tey li ko yëkkati mooy ku nekk xam na ne euh, Sénégal dafa censé président de la république booba ak léegi ñi ngi ci téeméeri fan ginnaaw bi ñu censé président bi ak tey euh, mu am ñenn ci ay opposition yoo xam ne génn nañ ñu def ko ni leen ko démocratie maye mooy ñu jàngat liñ gis ci ginnaaw bi ñu falee président de la république ba mu def téeméeri fan ana ñoom lan lañ jàngat ci téeméeri fan yooyu président de la république moom itam ci lu tombe comme ni mu ko mën a waxe mu génn waxtaan ak sénégalais yi waaye mu yemook daanaka bi muy def téeméeri fan waaye bi muy tàmbali dafa wax ne moom wootewul pour def bilan te mënta sax def bilan parce que bu fekkee bilan matériel bi sénégalais yi di xaar damay wax ne loolu mënul nekk parce que tey bu fekkonte ne monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dañu ko fal ne ko li ñu la falee mooy benn doomu Sénégal bu nekk ameel nga ko benn bouteille yu si mënul réaliser doomu sénégalais bu nekk mu jox la benn bouteille si ci cent jours mënu ko su fekkee bitim réew lay wute ji ji ba su demee passé commande ba ca usine ba balaa ñu koy liggéey ba koy jaarale ci bato yi ba muy ñëw bañ koy distribuer ba sénégalais bu nekk di jot sa bouteille cent jours day mat bu doon ci réew mi lañ koy defaree sax passé commande bi defar ko distribuer ko rek xaju fi kon loo xam ne bu ñu la waxoon sénégalais bu nekk benn bouteille yu si nga koy jox sax mënoo ko kooku ku la wax nga réaliser fi loo xam ne loxo da koy laal vraiment ki la koy laaj kooku bu paree dañ ko war a yóbbu faan dem faji ko parce que loolu xel nanguwu ko waaye man bi ma seetaanee président de la république mu ne moom deful bilan ma ne man de dinaa fekk maa nga ca makka maa ngi euh, nuyu ñëpp sax ci loolu di ñaan yàlla mu nangu ñaan yi ma ne bu ma demee Sénégal man dinaa woote conférence de presse te dinaa def bilan man ci 100 jours yi naam président de la république deful bilan mais man de damay def bilan te bilan boobu su ma ko defee ba pare jàpp naa ne mboolem peuple Sénégal dinañ nangu ne bilan am na te bilan bu musul am sax am na loolu lan ma lañ ciy jëkk a wax mooy dafa am lu ñuy wax bilan matériel am lu ñuy wax bilan immatériel bilan matériel nag ñun Sénégal moom la ñuy gën a jël di ko waxtaane euh, Ablaye Wade defar na fi aéroport Ablaye Wade defar na autoroute Macky Sall defar na terre defar na BRT mais bilan matériel daanaka amul solo lool te bu amee solo sax dafa nekkul loo xam ne benn président de la république mën naa taxaw mu ne bilan matériel bii man maa ko defaral senegal cent pour cent mënu ko lan moo tax mënu ko mooy tey aéroport jas soo ko doon wax da koy boole ci réalisation yi nga xam ne ab Ablaye wàdd moo ko fi bàyyi waaye soo calculé woon li Macky sàll magistère u sàll Sall liñ fay ci AIBD magistère u Ablaye Wade bi ko réalisé fayu ko ci soo doon jël maa ngi dégg rek barki démb dàmbooj di ko wax li makki sàll réalisé ci senegal muy lu mel ne TER lu mel ne berte lu mel ne stade Ablaye Wade tey jii li ci Diomaye war a yenu di ko fay ci magistère am sàll Sall mi ko réalisé du ko ci fay waa léegi am mbir micro bii ki ko waxaale waxaale ko ba mu normal ba xam bi ñaata la lépp ak ki ak ki ko fay buñ ko doon xëccoo kan moo ko moom normalement kon dañuy wax ne ki ki fay moo ko war a moom kon bilan matériel bi sax danga nga dul xam boo ko doon moomale président yi ana kan ci président yi nga koy moomale mais 100 jours yii ñu am dafa nekk 100 jours yoo xam ne képp kuy doxal sa xel tey xool di nga gis ne Sénégal am na 100 jours yoo xamante ne mosu ko am ci histoire am ñu njëkk koo tàmbalee rek ci am nañ président boo xam ne tey amul benn ndombal tànk parti politique bu mu làmboo bu dul nekk président de la république loolu 1960 ba 2023 Sénégal mosu ko am mas na maa dégg nag président Macky Sall daat ne bilan matériel moo baax waaye bilan immatériel du dara man bis boobu nag la croix Macky Sall génne ko ci ëttu borom xam-xam yi moom man dootuma ko jàppee borom xam-xam ci sama dund. parce que Macky Sall mi taxaw daat ne bilan immatériel amul xamul ne moom mii wax bilan immatériel la ku laajoon Macky Sall ana yow fan nga teg di fanaan ci palais bi taman du ma fa fanaan ngay yónni gendarme yi ñuy daw taman du ma leen yónni ana lan la est-ce que lu matériel la Macky Sall di génnee ne lii la wala lu immatériel moo tax mu man loolu kon dëgg-dëgg mbir mi du du matériel bu ñuy laal mais lu i immatériel la lu i immatériel loolu nag nañu xool président de la république boo xam ne day politique am parti lan la daan coûter Sénégal ak lan la daan yàq ci xar kanamu démocratie